asalaamaaleykum chers internautes de Sénégal euh, ñu ngi fii ci euh, mariage yu Fata donc nag ñu daje feex suñu xarit muy euh, humoriste comédien ba pare nekk acteur moom daal mu ngi mu ngi ci affaire yu bëri donc Singom ñu ngi lay nuyu bu baax. waaw maa ngi lay fay sama xarit bi di nuyu waa Sénégal di nuyu ñëpp ah Sénégal yëpp àdduna wërngal këpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar ñaanal jàmm. dafa mel ni da nga wàññi vidéo TikTok yi de ah ni ma la daan gisee lu bëri bëri bëri a ce naa xam ci lan nga ne ak yooyu. waaw parce que boo xoolee man genre TikTok daanu daanu ma si sax nekk si lu bëri genre rarement laa koy def su ma nekkee tournage ba pare laay profité def benn affaire genre nekkuma di def TikTok comme comme comme TikTokers yi carrément quoi comprendre genre su ma su ma su ma amul lu may kii laa koy def vite fait mais. comme boo nekkee si tournage yi nekk si si ay film yooyu def ak si ay projet ay activation jàmbur et tout di liggéey ak ay partenaires doo doo mën a nekk si TikTok bi tout le temps quoi parce que temps la laaj mais du dara xam nga li lépp su ma raaree rek pour pour pour pour def loo xamante ne lu monumental la lu grandiose la bégal sénégalais yi parce que affaire bi nekkatul ay affaire de ay ay ay TikTok ay singom ay bagages yooyu mais dafa war a doon genre ñun les sénégalais les artistes sénégalais. ñu extérioriser suñu aar xeexal suñu réew maanaam ak yeneen réew yi comprendre nga dem xeexi ak italiens yi français yi xam nga dem xeex ak ñeneen ñi quoi waa représenter Sénégal représenter Afrique ay ambassadeur la ñu quoi comprendre nga donc ci loolu la ñu war a nekk. et mais terewul aussi saa bu ñu amee temps dinañ def TikTok pour bégal ñi nga xamante ne ñoo ñu suivre foofu. comme ni nga ko waxee da ngeen a yi euh, génne euh, dem présenter Sénégal ci yeneen réew. mais dépassé de dama ne man genre nekkuma koo xam ne damay def ay contenu TikTok comme ni ko tiktokeur yi di defee mais de temps en temps damay def TikTok comprendre nga mais man. fekk nga ne Sénégal yéen da ngeen dem représenter. waaw loolu sama objectif la xam nga man je suis un artiste man je suis pas un tiktoker donte maa ngi biir tiktok parce que man tiktok wax dëgg yàlla bi mu euh, bi mu bi mu amee dañ ma sollicité pour ma ñëw comprendre nga parce que ñu bëri dañ ma doon wax lu tax si ngoom ubbi woo TikTok ubbi woo TikTok loolu moo ma dugal TikTok mais c'est pas dama ko dama ko ubbi woon. pour si côté cinéma bi ngay wax pour dem représenter Sénégal. cinéma bi ci ci ci ci musique bi ci ci whatever fii képp koo xamante ne yaa ngi si showbiz rek yaa ngi yaa ngi nekk artiste nga bàyyi ci sa waar mais mais comme man genre man moom maa si cinéma bi nekk si musique bi à la fois parce que damay def comédie musicale damay def cinéma donc damay def aussi stand man trop de casquette une seule tête là so euh, loolu mooy waral gars yi di ma gëj a gis ci ay TikTok ay Instagram rarement laay laay posté rarement laay laay def ay contenu foofu parce que tout le temps maa ngi préparé samay autoproduction boobu tout le temps aussi peut-être maa ngi ci ay production yu ñu ma woo comme production cinéma wala dara loolu rek moo may tënk mais à part loolu man sama sama temps yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp ci liggéey euh, loo xamante ne luy bégal sénégalais yi la wala loo xam ne dina leen rendre quoi yeah. tey euh, génne woon nga son di ñu si tooñ ñun ñun ñun maanaam ñun kii daal pël yi daal du ma ne Guinée mais ñun pël yi ah di di ñu si kii daal mais euh, instant bii nii lan la ñu mën a xaar parce que defe naa à part boobu nga gëj a génne suma ma juumulee est que après boobu génne waat nga yeneen. kon yow suivre ma loolu am na loolu après loolu am na son yu bëri yu cartonné. mais est boobu ëppul buzz aussi. dañoo kii. waa ça dépend ça dépend boobu neexoon na sénégalais et boobu genre dafa universel dafa doon loo xam ne genre euh, même bu dul affaire de li ma si li ma si li ma si dédi dédié guinéens yi et mais genre comme affaire de corps affaire de xëdd lay wax chaque corps presque day ñëwaat et mais def naa fi yeneen ay ay daaj nga am ay singom bu dee juróom di nga yëy bu dee fukki di nga yëy bu dee ñaar fukk ngay digérer xale yi kuy daaj ji seen ngam singom ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu bëri peut-être yow genre yow yow euh, waaw boobu nga boobu nga gënoon kii et tout def naa fi aussi ay film court métrage yoo xam ne samay propre production la nekk naa fi aussi ci ay ay production yoo xamante ne ay production cinéma la yenn yi dawul Sénégal donc euh, maa ngi ci sama yoon quoi comprendre nga. lay daw waaw ah, euh, ça Canal Plus A Plus yeah donc yow ci ci cinéma bi instant bi su ma jumulee ci nga gën a focus. maa ngi si cinéma bi maa ngi aussi si sama ay projet personnel et puis yi nañu xaar quoi surprise yi ñu ngi ñëw ah te ku dugg sama chaîne YouTube di nga xam ne genre maa ngi liggéey quoi maa ngi euh, donte euh, nekkuma fi nag koo xamante ne genre tout le temps damay def tout le temps tout le parce que genre man sama sama philosophie mooy euh, sama slogan du moins mooy les bonnes choses prennent du temps et s'il faut le faire il faudra bien le faire. man damay toog ba mu ñor ma yàq nit ñi xéwlu parce que sénégalais yi dama leen respecté lu ma doon tey ñoo ma ko def donc dama leen di jox lu pur lu dur loo xamante ne tey bu bu génnee rek dugg ci xool yëpp ko yeah. Euh, bi ngay def tey euh, man euh, par exemple man ci Abba Show laa la découvrir xaw ma peut avant boobu ndax yow yaa ngi doon def yeneen ak yeneen est-ce que bi nga xam ne ne danga koy def dafa nekk ci yow. wala da nga dem jàngi ko tey ba di nekk di parce que am na ñoo xam ne dañuy ñëw rek ñëw mu nekk si ñoom ñu joué am na ñoo xam ne dañuy xam ne ne am na talent bi mais dañuy dem yokk seen jàng ci ban côté nga nekk. d'accord man dama nekk nit koo xam ne dama mës a am talent depuis bi may nekk xale bi may nekk liir laa la dama talent mais talent le talent seul ne suffit pas boo amee talent faaw nga am style am xam-xam les technique comprendre nga mooy mooy mooy apprentissage bi. lu weesu sama talent damaa jàng bu baax a baax a baax a baax sama métier muy cinéma mm, du ma ne sax cinéma teatre man laa formé woo te théâtre moo ëmb art comprendre nga bu théâtre cinéma mu ngi ci musique mu ngi ci danse mu ngi ci lépp mu ngi ci donc yamu ma ci def formation wu théâtre def naa formation wu cinéma def naa formation wu art yu bëri daal ci li nga xamante ne man moom laay exercer donc ba ba tey maa ngi continuer di former wu comprendre nga parce que j'ai encore trop faim et dama war a représenter sama réew muy Sénégal ak Afrique dignement fi ma teg sama bët dafa sori lool lool lool lool lool moo tax du ma doyal comprendre en gars yi nañu xaar lu bëri lu bëri lu bëri lu bëri ci lu diis gann ci man incha allahu rabbi incha allah ñu chance ak un an ak yàlla nañu dajewaat la nga yor ay trophée yu dul jeex. amin amin ñu mu doon ay trophée Sénégal yoo xamante ne dañuy àndandoo ñun artistes sénégal yëpp. di ko jël ci kanamu ay américain ak ay français feneen ak feneen mën nañ ko quoi am nañ talent bi am nañ lépp waaw te ñu ngi liggéey. merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal bu baax. waa xam nga xam nga da nga nekk jeune nekk porteur de voix tey dafa am ñoo xam ne dañ lay suivre am na ñoo xam ne dañ la bëgg comprendre peut tey en tant que jeune. ak dëkk bi bu dee fois bu yëngu mën naa tey boo joxee message même bu nekkee benn nit mën na dina ne kii dama koo bëgg mën naa déglu ay waaw dëgg la loolu loolu dañ ciy sawar lool parce que ñun réew mi moo ñu ñor ñun saabu réew mi amee ndam mooy ñun ñun ñun ñoo am ndam saabu bu réew amee leneen it ñun ñun ñoo koy dundandoo ñun suñu biir ndax lépp lu ñuy daj ci coono ah réew mi moo tax ñu koy daj wax dëgg yàlla pour représenter suñu réew aussi pour pour rendre suñu réew fier muy le Sénégal ah mais mais li nga may laaj aussi dafa dafa fekk mu doon loo xamante ne wax dëgg yàlla euh, bëriwuma ci xam-xam parce que genre Euh, yow yaa ma yow yaa ma ko yëgal nii comprendre nga du du du caag du dara nag du du du yëg sama bopp du dara mais dafa fekk wallahi lazim waaw moo nekkoon ma ma jugee woon ci ay enchaînement yu metti ay tournage ak yooyu daanaka ba nga xamante ne information yooyu jotuma koo am donc loolu la rek mais mais mais du dara quoi damay réew mi moom jàmm rek laa ciy ñaan et wàllum message pour man fi mu toll nii message amatul parce que je pense jàmm dellu si na quoi comprendre nga ñëpp ñu ngi ci jàmm euh, yaakaar naa loolu la quoi et yàlla na jàmm sax xam nga li gën ci réew mi yàlla def ko fi ki gën ci réew mi yàlla teg ko fi e ñëpp am jàmm quoi ñëpp li ñu bëgg seen xol yàlla defal leen te mu doon lu gën ci réew mi.